J'ai mal. J'ai mal. Vous avez presque réussi. J'ai mal. Mais <laughs> votre manœuvre ne passera pas. Souleymane. J'ai mal. Souleymane. Macky Sall tient entre les entre ses mains les destinées de 18 millions de Sénégalais. Macky Sall est premier représentant à à, à l'étranger. xalaatuloo ne ni nga métit bi nga am métit boobu la sénégalais yu bari am. yu ko yéene wéy bu rafet. yu ko yéene woon jàmm yéene ko réew mi woy bu rafet bi dina ko am Maymuna mais ñu ko entaché nañu ko dara entaché si fii yàgg naa si fii gis nga fii yàgg nit yàgg naa entaché ñu defar ñu raxas ko ba mu set solal ko ba mu jekk ñu suturaal ko loolu la suñu réew xam alors Macky Sall di fi xalaat nit jarut di fi Macky Sall woote dialogue c'est-à-dire nga nga xalaat ne après tout ce qui s'est passé entre Macky Sall et son opposition nga yaakaar dinañ ko yombalal demam nga yaakaar ne dinañ ko bàyyi sénégalais yi dérouleel ko tapis rouge. lu tax Macky Sall ñoo de xaaral rek Macky Sall dem dans le sens du vent reporter élection yi ne nañ dialogué mu doon li ñenn ñi bëggoon léegi ñu ne ko déedéet yow yaa reporter élection yi parce que danga am problème ci sa biir ci sa biir camp yow yaa bëgg a liquider. sa sa gis nga Macky bu wéetee bu wéetee wéet ak yàlla. waaw xaaral rek. wéet ak yàlla léegi Macky Sall ne kaa leen ñu dialogue. doo war na poser débat bi en conseil des ministres ñoom ñu doon wax naan ni ñu tëggee mbir yi baaxul au lieu ñu dem wuyu dialogue ñu commencé bëgg a indi dissension est-ce que Macky Sall finalement ne s'est pas fait piéger est-ce qu'il n'est pas pris finalement dans ah, son propre jeu. et s'il s'est fait piéger de bonne foi. may mun na nit waaw mais moom tamit am na intérêt ci report bi. nit nit la ban ban intérêt la am ci report bi. am na intérêt ci report bi wax ma intérêt. am na APR am na ñoo am intérêt ci report bi. Macky ban intérêt la ci am. am na ñoo am report intérêt ci report bi Macky Macky semaine ngi nii Macky jàppal Macky Macky bàyyil Macky yëy Macky yàbbi ban intérêt la ci am biñ ko ko njëkkee wax. dafa ni mois un an et demi un, de plus un an. ça ne l'intéressait pas c'est ce qu'on a cru. mais ça ne l'intéressait pas il y a deux mois dafa ne doom yi jiitu leen ma ñu takk seen i bagages dem Mermoz ay carton mais dafa am ñu nekk di manœuvrer dans le camp présidentiel ñu am doole bariwuñu de waaye ak ñoo am doole. waaw mais danga ne. ña leen ngem ba am doole. da da nga ne xam nga président benn fonction rek la am moom lay faral di wax mooy décider. Et il a décidé. On prend la décision ensemble, mais il décide seul. donc ñooñu nu ñu bari bari doole. bari ñu de en nombre de mais ak ñoo am doole ñeneen ngeen ba am doole. Macky Macky leen ndax man ci laa boobu. yow ah je sais pas. Hmm. man moom kuy wax waxu report rek damay jàpp ne ci manœuvre bi nga bokk. non man man du man may mun a man du ma manœuvre. mais moi je te connais de bonne foi. man du ma loolu mooy sa chance ak man. mais ñu bari gis nga man ku fi wax waxu report ci manœuvre bi nga bokk. ma ma ma man président daf ma tere woon ma wax waxi report bi mu mujjee sa émission fii yàlla xam na ko veille bi dafa ni ma bàyyil wax ji bu ma la déggati ma ne ko ah programme bi naa ci may mun a boo seetloo bi nga ma laajee kañ nga gëj a wax président dama ne la ci suba. ma ni ko sama kàddu jiitu na ma nee naa damay dem ci may Maymuna il faut ma dem euh, na ñu fexe ba sàmm li am mooy jàmm ji huit mois bariwul léegi mu jeex du ñu xalaat sunu président sunu président la te ku bëgg réew mi la il a beaucoup pour ce pays je témoin j'ai géré c'est pas l'un des programmes ni nga ko waxee j'ai géré le président le, le programme le plus important de toute l'histoire du Sénégal bi Sénégal di Sénégal ba tey programme bi ci gën a am solo mooy 522 milliards bi may quitté 97 la milliards la bàyyi BAD BID banque BAD BID fonds saoudien te ñu ngi koy dawal ba léegi ñu teg ci. ralentir nañ ko kay. ñu teg ci ñu teg ci Puma. ñu teg ci Puma ralentir na ñu teg ci ñu teg Puma ralentir.